alaikum, man le Mamadou Mbaye euh, responsable APR coordonnateur des anciens membre fondateur de l'Alliance pour la République euh, également secrétaire administratif départemental de l'APR depuis sa création. alors monsieur le secrétaire administratif le femme de feebu inédit bu Amaties, à lors de la séance de présentation de condoléances c'est Baba Diaw.

muy geste boo xam ni ñun ñëpp rafetul nañ ko ñun waa Thiès di jaale aussi Baba Diaw bi nga xam ni dafa ñàkk yaayam. effectivement maa ngi fa euh, geste bi ci forme bi mën nga ko xaw a ñaawlu parce que dina xaw a perturber euh, le système sécuritaire du président xaw na ko perturber waaye dafay traduire benn malaise bu nekk APR euh, li ma wax bi ma paree foofu sama benn xale dama ni ko gis nañu taabaan li mu def mais am na vingt mille taabaan wala dix mille taabaan à Thiès parce que taabaan li mu def geste la boo xam day wone ni inaccessibilité responsable Thiès yi la. parce que su fekkoon doon nañ ko wuyu di wax ak moom di ko déglu xool lu mu lan mooy problème am kon du agsi fii bay dem di dem ci président de la République di ko wax la situation de Thiès lii dafa ñaaw trop ci ñoom qui est responsable de ceci. parce que quelqu'un koo xam ni accueillir nga président en 2009 gis naa vidéo yi na la ko quand les gens disent que dafa feebar wala dafa c'est faux taban si ñi njëkk gëm président de la république membre fondateur du parti comme man ñu bokk xeex bi donc lii mu def ancien yépp la ko defal bien que ba mu koy def yëguñu ko gisuñu ko mais on est très fier du geste bi mu def

Nous ñëpp falu nañu ba mu des Mamadou Mbaye wala pas fal. mais pour quelle raison alors que le travail abattu bi ñoom li ñu liggéey ñun moom lañ liggéey la la mais kenn leen kenn leen joxuñu poste joxuñu leen dara taban sax pour mu dugg foofu waa Dakar yee ko dugal man pour mu chef de cabinet euh, président euh, chef de cabinet moom moo mu le chef de protocole Pape Samba moo ma dugal moo ma seen néew moo du ñëwal duñu la sax informé alors que bu njëkk dañ doon ànd def liggéey bi ñu ñëw ba fii ay teraanga feeñ ñu wone ak ngoree di koo xam ni c'est inadmissible looloo tax xale bi démb mu def jëf jooju mais melul noonu du indiscipline am du indiscipline kenn nous sommes disciplinés nous respectons nous respectons le service protocolaire du président de la République nous respectons le président nous ñu am yar ak mais lañu mais dañoo sës donc geste bi ñun ñëpp ñi ngi solidaire ci geste parce que nag affaire bi dafa jot li jot jot na ginnaaw président na wax ak parce que ñun ñoo fi nekkoon ba dara dul dara ba àll bi lëndamee ñun ñoo xuus jàll te ñoom ñi wax ni kenn mun ko contester.

suñ bëggee gis président duñ ko gis suñ bëggee nuyu sax président duñ ko nuyu sa président daal ñëw seen kër suñuy joxe dara doo ci bokk suñuy yëgalee dara doo ci bokk mais quand même nañ xool loolu mooy ban façon c'est ñoom ñi koy def sax il défendent même pas le président président gars yi dañ koy attaquer suba ngoon doo dégg sax ministre bu ko défendre wala kii il est laissé en rade comme ça opposition baa ngi jël du terrain.

il il trompe le président de la République je le répète encore dañ koy nax réalité bi mooy y a des gens yu fi nekkoon amuñu dara ils n'ont rien reçu aussi jotuñu dara. très bien président est-ce que bi Ami amee ay jafe-jafe am ay euh, responsable de ngeen listé woon ni di nga leen seet waxtaan ak ñoom ci léthargie du parti bi wala boog yéen a nga xam ne yéenay des membres fondateurs te jox leen seen gëdd. waaw ñun kay fi ñu toll nii wax dëgg yàlla bala ñuy wax sax def animation parti yooyu mooy bala nga naan naam da nga fay nekk ñun li ñu soxla actuellement mooy ku ñuy jàppale ku ñu yóbbu ci président lañu soxla ah Siré Dia recevoir nañu ni daf ñu yóbbu ci daf ñuy jàppale yóbbu ñu ci président ñu ngi koy déglu boobu ba léegi bët ki démb nag def na un geste quand même te dañ koy wax parce que nit aussi lu mu def rek dañ koy wax. à l'heure où nous sommes moom laa fi gis de depuis biñ ko teg biñ ko joxee suñuy proposition mu jël juróomi ancien fal leen jël na kenn Ndiayène Sirax fal ko jël na kenn Kayaab fal ko jël na kenn euh, Taset fal ko ci biir ville bi jël na fi kenn fal ko Touba jël na fa kenn fal ko no euh, dugal ko recruter ko donc Siré li mu wax mi ngi ci yoon wi bien que am na yu des démb fàttali ko fàttali naa ko ko nee naa ko li nga waxoon def ko mu ni ma lim ma waxoon jóguma ci. dinaa ko def mais pour le moment si rek lañ gis mais ñeneen ñi defuñu fi dara ça il faut oser aussi le dire parce que man li may wax ragal lu ma ci ku dul yàlla ñeneen defaluñu dara ku la deful dara mënoo ko wax c'est ça la réalité sa Dieu sait que am na ay responsables yu bëri à Thiès dafay mel ni sax dañuy rejeter anciens yi bëgguñu leen gis mais ñun nag kenn mënaluñu dara dara dara ku dul yàlla. alors face à cette situation lan moo donne une recommandation parce que Tabar def na le commande au suicide. le commando suicide c'est trop dur mais <laughs> euh, il s'est sacrifié pour la main. voilà il fait il s'est sacrifié pour nous tous donc nous ñëpp la ko defal franchement nous euh, ngi koy féliciter entre guillemets quand même bien que geste côté sécuritaire c'est à déplorer mais président xam na taabaan donc moo tax bi de corps yi ñëwee dañ leen bàyyi leen ko parce que loolu ku xamul président mënoo ko def d'ailleurs parce que taabaan c'est que le président le connaît moo tax mu am audace boobu donc c'est pas un geste bu ñuy diaboliser aussi hein dafa gis président man man man mi wax ak yow dem naa ci tool bi président visité toolu taseer yi seen ko dem ba ci moom donc c'est pas c'est pas un geste c'est c'est un geste familier entre taabaan pour taabaan c'est un geste familier bien que c'est un président bon li ma donc foofu ñun ñëpp la ko defal ñun ñëpp la ko defal ñun ñëpp am amertume nga wax ko ak nga bañ ko wax dañu sonn ci parti bi ñun ci xeex ñun ci dara munoo gis président munoo am benn bunt bunt yëpp dañ ko tëj corruption fépp on peut rien rien obtenir donc loolu mënul dem recommandation bi may wax mooy que euh, d' abord ci Siré Dia na àggalee lim commencé il est en train de mi ngi commencé na liggéey bu baax na ko continuer parce que bëgguma aussi ñu naan kii lu mu kii ak yooyu du ko def ak yooyu parce que ça c'est pas bon aussi démb rappelé na ma ko nee na ma li ma wax dinaa ko def et je pense bien que dina ko def beneen bi mooy yeneen responsable yi nañ jàppale anciens yi c' est ça la réalité tant que defuñu ko nag parti bi du dem c' est moi Mamadou mbay qui le dit tant que defuñu ko duñ am ndam bir Thiès aussi et c'est pas la première fois may wax ci ci ci et ce j'appelle j'attire l'attention du président de la République que ne recevoir ancien yi dimbali len ku nek amna fuñ la mëna a dugal yaa xëy si ku nek amna fuñ nga am diplôme ak nga ñak diplôme ci yem ku ne amna na la mëna a dugal ndax yëf yi nag metti ñun la woon tey la neex rek ñu gis ay nit réunion mat quinze personnes Augustin xam na li wax Abdou mbaw xam na wax réunir nañ sama kër ba tay matuñu vingt kon suñ ñëwee fii mënuñu sax gis président de la république Ça, nañ ko ay la su dañu bëgg président nañu retourner en arrière ñiñ doon ñu ak ñun ñëpp loxo programme bi parce que lii jot jot na élection yi jot